waaw salaamaaleykum waa Sénégal so maa ngi présenté wu je m'appelle Sépou Ngom donc euh, nekk fii à Detroit Michigan di particulièrement ngi nekk ci salle euh, d'entraînement bu xam ne MMA House of Champion donc euh, voilà loolu ngeen loolu daal mooy moo nekkoon waaw dama nekk fii en qualité vraiment de producteur en tout xam ne maam moom sama sama sama sama salle moom sama sama programme soo nekk di entraîné bokk nag di ko liggéey ak ay nit ah donc nekk fi ak ñaar ba ñett nit ñu xam ne ay partenaires partenariatship lañu donc ñoo bokk ci liggéey saal ñu yëngu ci wàllu boxe ak ci wàllu bëri di yëngu ci wàllu euh, ah, euh, jiu-jitsu donc tout ce qui est maintenant percussion pied et point man maa koy def c'est d'accord si MMA bi dong la ngay entraîner wala am na leneen loo xamante ne tamit à part boxe bi ak MMA bi. lan parce que dañuy def boxe boxe règle muy boxe anglaise dañuy def um, uh, kick boxing ah so dañuy def uh, um, jiu-jitsu dañuy def judo en en même temps et dañuy def boxe française boo xam ne man maa koy maa koy diriger ak kick boxing. donc euh, loolu la ñuy def ak. Um, Touré Promet waaw man euh, comme ni ma la ko waxee sànq man je suis euh, neuf fois champion Sénégal donc euh, nekk vice champion du monde en en boxe donc nekk expert des arts martiaux et sport de combat et nekk Lion d'or décerné par le président de la République du Sénégal donc en quatre-vingt-dix-neuf deux mille donc avant même may ñëw Amérique ci laa am samay diplôme donc ci laa nekk ci ci ci wàllu. armation et sport de combat donc euh, boo ñëwee fi aussi ci même lance boobu laa nekk di def donc après maintenant comme fi boo fi ñëwee tamit léegi MMA moo gën a xew donc euh, ñu dugg aussi ci MMA bi. exact am na am na ay mbër américains yu ñëw fi entraîné soo am na ay mbër aussi yu ñëw fi aussi di entraîné. waaw Amérique soo dama fi ñëw pour euh, comme ñu bëri ñëw pour eggale samay wala bokk ñëw ak samay gént. ah ñun samay géej yoo xam ne peut être commencé woon naa ko mais di Sénégal donc gis ne dinaa am plus d'opportunité pour mën a samay gént ma mën ko réaliser à part de fii et ci samay bokk na ci yëngu ci wàllu li xam ne moom laa xam muy affaire sport de combat et arts martiaux donc combiné avec la sécurité donc loolu mooy sama domaine d'activité donc moo tax ma ñëw fii li ci ëpp ba tax ma ñëw fii loolu ci la bokk waaw Sénégal commencé woon naa fa déjà en boxe française ah, donc xam nga fii de boxe ba nekk vice champion du nekk entraîneur national soo yóbbu ay tireur ay ay boxeur ñu dem boxe au niveau international tel soir donc mooy commencé nga dara soo boo ñëwee fii tamit loolu ah, laa fi continuer ci wàllu ah, sport donc ci wàllu benn wàllu suñu wàllu sécurité nekk Sénégal aussi amoon naa fa sama amoon naa am naa sama compagnie de de sécurité compagnie de gardiennage et de sport de fond en même temps une école de formation en sécurité rapprochée donc activité yooyu yëpp xam ne moom laa xam donc boo ñëwee aussi ci activité yooyu moom laa nekkaat di continuer di développer. am nañu vraiment ay loxo yu mucc ayib yu ma ko bàyyi parce que comme ni ma la ko waxee ñun dañu nekk famille macha allah boobu bu yaatu. te ñëpp dañu yëngu ci wàllu kaaraange ñëpp dañu yëngu ci wàllu sécurité donc euh, société du Wec Sénégal maa ngi ko bàyyi ak suñu sama mag soo xam ne moom euh, ancien de la BIB la donc il a son master en sécurité et sport de combat il vivait ici même aux euh, mi ngi Sénégal j'ai un jeune frère aussi Nabi Mohamed Ngom vraiment un militaire aussi qui est qui connaît trop qui connaît trop très bien ci wàllu sécurité te notre vieux Semo bi mi ngi foofu Sénégal donc ñoom ñoom trois donc ñoom ñoo ñoom ñooy diriger actuellement euh, entreprise bi. suma su ma la déggee daal mooy teg nga ko si loxo yu wóor. exact teg naa ci loxo yu wóor. d' léegi yow fii nga ñëw fii États-Unis nga xamante ne boo fi nekkee. Euh, comme étranger est-ce que yow mën a nga créer ko sa entreprise boobu wala da nga am ay partenaire wala. waaw loolu nag moom ah, yomb ah c'est c'est parce que fii moom ah, da nga am sa gént mais boo yeewoo soo da ngay nekk ci continuer di gént ci gént bi lu nekk mën na la cee daal soo ah, Amérique dara yomb fi mais tout est possible donc ci possibilité boobu ci laa nekk créer entreprise bi donc euh, pour taxawal ko c'est vrai nag am na yoo xam ne. mat na am na xam ne maa ngi ci daw topp ci ba léegi. comme genre comme lan ci genre agrément parce que soo ñoom li ñuy doxalee fii dañ lay jox ah, autorisation ñu ne la mën nga liggéey lii mais pour nga am lii il faut nga dolli donc comme ñu ngi ci xaasu ah, ah, administration boo xam ne ñu ngi ci donc pour am un agrément qui va nous permettre de faire de la sécurité rapprochée et de la sécurité en en dans sa globalité. ci Amérique ak fépp ci àdduna bi so comme agrément ni ma ko amee Sénégal loolu laa koy faytee nii pour l' instant pour am ko fii ci biir Amérique moo xam dina pene ma non seulement ma def ko ci biir Amérique def ko fépp ci àdduna bi xam ne ci turu vraiment société am nga ñoo doon liggéeyal euh, au niveau de du Sénégal avant ngay ñëw fii comme garde rapproché comme euh, garde du corps waaw waaw am nañ ci am nañ ci c' <coughs> est vrai euh, léeg-léeg ñu ne waaye la lay def fan la jëlee li muy def looloo tax sax dagguma la loolu tax ma posé question parce que ma mii xaw ma la. tout à déjà te xam naa ne bëri na ay sénégalais yoo xam ne xamuñu la tamit. tout à fait tout à fait xam nga peut dañoo dañoo tànn loolu daa bokk dañoo tànn métier bu xam ne dafa am dafa bëri noppi loolu soo du du du métier wax. so moo tax peut ñu bëri du ñu xam mais quand on parlera de Semou Ngom et la famille Ngom par rapport à la sécurité euh, ci globalité mais non seulement ci par rapport à la sécurité rapprochée euh, ci jaar ci formation vraiment képp ku def sécurité rapprochée Sénégal so ak Afrique ak àdduna bi duñ ne famille Ngom doone xawma leen donc man euh, sama propre expérience boobu donc xam nga nit ku garder Khalifa Sall étant mu nekk ministre d' état donc chargé des élections à l' du du parti Abdou Diouf ça xam nga kooku ku koy si ku nekk si yor psychothérapie c'est c'est c'est c'est kooku ah, xamuñu ko so j'ai à gérer aussi Jean-Paul Diaz ah, Diaz père ah, nekk chef de sécurité donc euh, j'ai eu à gérer Robert nekk chef de sécurité donc euh, ku mel ne Cheikh Tidiane Gadio donc nekk naa chef de sécurité hein, Cardicorp, en même temps chauffeur. So, et j'en passe. Donc, euh, Mustafa Girassi, euh, Donc, euh, et je, la liste est long su ma la buggee dégg bëgg dégg su ma la bëggee dégg mooy da nga bëgg ñëw tamit pour ni bokk ci sécurité Joe Biden daa mel ni. <laughs> mais mais mais mais on peut on peut faire plus on peut faire plus parce que euh, bëgg nañ ko et lépp lu mu laaj pare nañ mën nañu pare nañ ko def ko suñu suñu passion la suñu métier la donc. Euh, lépp lu ñu mën def pour satisfaire en um, population pour satisfaire euh, VIP yi pour ñu mën a am kaaraange bu bu dëgër bu wér bu am euh, bu mucc ayib ñun suñu métier mooy suñu passion mooy ñu ñu ba ñoo ñu nekk en sécurité. lan ngay lancer autorité yi nga xamante ne dañuy ànd ak seen famille di ñëw fii. tan nga bëgg par rapport ak yow li ngay liggéey en tant que sénégalais. <laughs> pour ñu am loo xamante ne dafay dafay loo xam ne day wóor daal ñoo xam ne sénégalais dañ ko sekkal lan nga leen bëgg a wax yow. ben li mu leen euh, peut-être li mu leen di wax mooy li ñu xam mooy euh, kaaraange soow am na fépp ci àdduna bi soo ñun Sénégal soo dëkk dëkk bu mag lañ ah dëkk bu mag mag a mag a mag a mag soow di ko xam nag fii ak euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jéem mais suñu mënee dañ xam ne ñun dëkk bu mag lañu soo ñu ngi fii di yëngu ci wàllu kaaraange donc lépp lu xam ne doomu Sénégal soxla na ko muy autorité yi muy citoyen euh, citoyen simple ñu pare nañu vraiment pour accompagner la ci wàllu kaaraange mu nekk fii aux États-Unis comme mu nekk fépp ci àdduna bi. waaw est-ce que yomb na nekk agent de sécurité parce que man damay gis parfois. bon agent de sécurité garde rapproché garde corps parce que damay gis nii bëri na fi koo wax mu ne agent de sécurité la garde corps la wala bon je sais pas whatever comme ni ngeen koy waxee est que yomb na parce que tamit bëri na bëri na ay éléments daal donc dama xamul ndax dafa laaj laajte formation approfondie wala ku ku mu neex mën nga ko nekk. waaw mais xam agent de sécurité dama dama lay dama lay jox ne dama naan la exemple un gestionnaire c'est un gestionnaire un gestionnaire tey ku mu man la soow mais bu ñu la joxee liggéey gestionnaire c' est sûr que doo ko def c' est sûr doo ko def te le garde le garde corps ou l' de sécurité rapproché mën nga ko tuddee sa bopp nga am doole mën nga ko tuddee sa bopp nga ñàkk doole mais ñëpp bëgg a nekk nañ doole mais bi am nañ doole pour mën nekk agent de sécurité rapproché. mais loolu nga jàng xam-xam bi soo dafa mel ne um, mënoo nekk métier métier booy def ko mu jàng ko te pour nga nekk un agent de sécurité rapproché métier la bu ñuy jàng boo ko jàngul mais mën nga am nag don pour def ko comme Sénégal dañoo bëri don mais franchement métier la boo xam ne dañ koy jàng. risques yi lan la. ba les risques c' comme euh, on a l'habitude de le dire sur ci stage yu ñuy def yëpp mooy benn tànk bi mi ngi ci kaso bi benn tànk mi ci armée bi donc sa bopp bi bu ci dara nekkul ci tu as mille chance nga jël ci ñaari benn. yàpp lan mooy lan mooy lan mooy obligation agent de sécurité. obligation de agent de sécurité mooy vraiment mu mu mi a meññam <laughs> mu teel a meññam bi mu def mu war a def fi mu ko war a defee. et j'en passe si aujourd'hui j'étais toujours en fonction je mënuma du ma mën mu wax ñi ma ñi ma liggéeyal te ñi ma liggéey ëpp na ëpp na li ma la wax. dafa laaj effacé wu daal. non non mënoo mënoo mënoo nekk mënoo nekk ci kanam. ok. bon déjà Semou dañ la gis ngay ànd ak euh, le multimilliardaire euh, sénégalo-américain te ñuy wax euh, Mo Gates ñu bëggoon xam seen relation lan la. waaw mais Mohamed Diallo nit ku baax la soo nit ku baax la et relation bu yàgg la soo ñu ngi fii la comme ni ko Olof Ndiaye waxee ay garab ci ci kaw la ñuy fekkante ah mi ngi suñu kanam donc euh, dañ koy encouragé souhaité ko vraiment li muy def mu yàlla jàppale ko ah et puis ci des ci yeneen di question <laughs> ñu toog gën ko yaatal. léegi yaa may wax sànq naan ma ci euh, mbëru sénégalais yi dañ fiy ñëw di entraîner nga leen di jàppale suñu amee combat euh, j'espère que tam bu ñu amee combat MMA da ci bokk tamit. waaw waaw parce que vraiment ça moom c'est j'en profite même de l'occasion pour lancer une appel une appel à à nos sénégalais ñi xam ne ñu ngi bëgg aventure yow ci MMA so MMA yi du du du bëri simple il faut plus c'est pas dire que bëri simple baaxul yaa te c'est formidable mais il faut en plus pour def MMA il faut en plus ce plus là ñu tey ak académie bi ñuy bi ñu ngi leen ubbi suñu bunt pour que ñu ñëw ñu jàppalante ñu mën leen dolli xam-xam ci domaine bi ñuy bi ñuy dama gis ne ci MMA bi am nañ mbëri yoo xamante ne yu bëri yoo xamante ne daan nañ leen fi. comme ku mel ni euh, Siteu Bombardier ak Reug Reug ay daan yu doy waar. ma bëggoon xam en tant que expert yow loo ci loo ci mën a wax daal. waaw waaw mais parce que vraiment c' est des c' est des c' est champions. ci domaine ci domaine bi ñu nekk. mais comme je disais tout rek domaine de MMA métier la il faut plus il faut nga mën a bëre nga mën a dóor. est-ce que du ñoom xaalis la ut. yee mais ut xaalis bi à euh, le risque et la parce que xaalis boo xam ne da nga koy da euh, ci MMA te fekk jàng. en tout cas daan yu doy waar la. non non daan yi daan yi sax daan yi sax mooy mooy gën a sedd. Hmm? daan mooy li gën a sedd parce que MMA soow du du du affaire d'accord Ketchup aussi gis nañ ko mu am ci une belle victoire moom tamit loo koy wax ak euh, loo xalaat ci avenir am ci MMA. ba euh, avenir que je pense que ci sociaux la gën la gën a neex ah honnêtement sociaux moom vraiment mu ngi def liggéey bu bu bu mucc ayib mais quant à ci wàllu MMA donc moom euh, soo mun na peut ay ay ay frères am mu mu soo man loolu laa koy en tant que en tant en expert. maintenant relation humaine soo il c'est un gars formidable mais par rapport à l'MMA il n'a qu'à aller. Euh, faire autre chose peut-être bëri show c'est bon mais euh, communication n'est pas n'est pas n'est pas MMA yi ah en tout cas gis nañ Pawlish Mbaye bi mu daanee euh, Ouzin Keita laaj na këccëg mam moo ma jaaxal te dina waxkat yëpp dina leen daan exact exact exact moom vraiment dina am chance pour pour songo waxkat yi quoi mais waxkat yëpp moom xam naa euh, combat wax tamit dina dina jaay MMA bi mais il faut que wax bi vraiment soo fi ñu toll ñu daal ñu passe aux choses sérieuses je pense que après dinañ interpeller Ketchup ci euh, euh, nu ñu koy waxatee ci ci ci euh, kii nu ñu koy waxatee waaye. dinañ interpeller Ketchup ci ci ci ci combat bi ci dëkk bi ko bi ko kii dëkk. Pawlish Pawlish Mbaye dëkk. mais Pawlish nga xam naa moom je l'aime bien mais xam naa mën na mën na entraîner moo song ba song waa parce que wax yi bokk na mais micro bi waa ji yor moom yoragul micro boobu quoi na xaar ci kanam. Badou bon de toutes les façons ñu ngi lay remercier mais balaa dernière question dina laajte conseil bi nga xamante ne moom ngay jox sénégalais yi fi nekk ak tamit. Euh, euh, qu'est-ce tu ak attente bi nga xam ne moom nga am ci autorité sénégalaise yi. Baba écoute euh, man je pense pour commencer ak suñu ak suñu mbokk yi nekk fii ñu jël seen terrain yi en charge ñu jël seen terrain kaaraange lañ nekk ku nekk war nga jël sa kaaraange sa kaaraange en charge di profiter aussi di lancer benn appel ci communauté bu nekk fii a à Détroit et même ci environnement yi nañu bàyyi seen doom yi ñoo entraîné si ñoo tàggat seen yaram jàng boxe jàng judo jàng kickboxing jàng MMA ça va dina leen permettre ñu nekk ci beneen niveau et ça vraiment. maa ngi profité ci Sénégal bi pour vraiment ñu lancer appel boobu um, communité bi ñu nekkal so maintenant pour venir um, suñu autorités yi nekk Sénégal mais ñu gën a ñu gën a yeewu ñu gën a yeewu xam ne adduna bi fu mu toll nii na fu xam ne duutul kenn moo war a toog di xaar kenn so ñoom seen responsable dañu yor macha allah bëri na mais lu mu bëri bëri nañu xool. bien-être population bi lan la population bi soxla et ñun tey suñu amoon peut-être lépp lu ñu soxla soo Sénégal amaana amaana du ñu expatrié wu pour ñëw toog fii mais malheureusement soo am nañ chance ñëw fi mais ñaata millions ñoo amul chance ñëw fi et ñooñu gouvernement bi war na jëm dara ci pas forcément daf ko a mais war na jëm le maximum et ça vraiment les attentes sont très fortes euh, par rapport euh, à la jeunesse et ça les gens 30 toujours. xam ñaata at nga fi def. so man def naa fi huit ans léegi mille derrière. da ngay Modou si wala sa famille nga fi nekkal. oui je suis waaw mais vraiment je suis là euh, j'en profite même pour euh, sant et puis sama soxna. soo vraiment euh, su ma toogee aussi Amérique boo boo mën a am sama xel daal ma mën a entraîner tout ça yàlla ak moom yàlla yàlla ak moom yàlla ci loxoom la ko jaar donc ñëpp. Modou Modou xam nañ Amérique naka lay naka lay wokkee donc su ñëwee tey ba mu mën a nekk samay sama passion man man li mu dund en partie en partie c' est grâce à elle. vraiment donc on fait coucou à madame Ngom non un un un léegi loo xalaat ci waa Sénégal. ba non Sénégal moom vraiment comme ni ko gars yi yéen moom boo ci kanam rek quoi ah ci karam ci ci lu baax ci lu rafet parce que xam nga déplacé wu ah, jógee def kilomètres yi ñëw ba pour xam seen i um, population ci lu ñu nekk um, wane leen ak seen i seen i seen i doomu réew saaw loolu liggéey gënu ko rëy donc Sénégal moom vraiment ñu leen di ñaanal di leen encouragé ci liggéey bi ngeen def ngeen continué di ko def et plus particulièrement nag ak yow ah donc yow madame moom vraiment dañ naan na gën a jàpp ñu gën la ko dolli dénk et puis directeur général Sénégal ñu ne ko vraiment sa élément bi elle est formidable ah elle est formidable donc vraiment na salaire bi yokk <laughs> ñu ngi lay jaajëfal frère ñu ngi lay jaajëfal. non tout le plaisir est pour moi. merci c'est partagé. moom day entraîné ay nit boo xam ne dañu nekk ay d'ailleurs bi passé rek ci école yi ah, école am moom moo jëloon numéro te fii la nekk yëpp Sénégal yëpp ñëpp ñu sport combat ak euh, armation day ñëw découvrir suñu euh, complexe franchement ñu ngi leen di invité ñaan euh, geste yàlla sotti na vraiment suñu autorités yi am nañ possibilité vraiment pour fa ay individuellement aussi ñu bëgg def carrière ci sport de combat MMA yéen a vous êtes les mieux connus bring it back. There go. Bring it back. Keep working on this phone. Oh. He's so cute. One one. One bring it back. Bring it back quicker. Don't leave it out there. Snatch it. Bring it back. There you go. Go up under after you do that. you go. Pivot. Pivot on it. Under uppercut. you go. Oh, you made him miss. Hands up.

One nine, three. Come on, man. Use your feet. You can't keep backing up on him. You're gonna see more shots. You can't keep backing up on him. You reaching a little bit with your hands. What I tell you about your shoulders when you jab? No, you close your eyes. What I tell you about your shoulder when you jab? Point your shoulder toward it. Use some feints a little bit. Do some feints. Uh, you wide. You throwing it too wide. You throwing it too wide. Let's go. Come on, man. Keep swearing, Tony. Keep swearing, Tony. You're doing it from too far away. That was good outside. You're not breathing when you punch. You're not letting it flow. Keep your left hand closer to him. Keep your left hand. You you gonna keep getting hit. So every time you close your eye. You gotta go to the body. Get closer. Short steps. Press. Chin down. Hands up. Fire back. Pick and return. Hey, he, you throwing one shot at a time. You ain't let you gotta let your punches go. Hands up. Don't Basic and simple. You scared. You ain't trying to hit him, dude. You ain't gonna hit him with that. In and out. In and out. Oh, you ain't gonna hit him. Hey, hey. You laughing at me. You laughing at me. 45. 45. Hey, hey. 45. Back up. Back up, Jack. Back up, Jack. Back up, Jack. Your moody feet, I told you. Take this rope. Double and triple jab. Thank you, jab. You're doing this from too far away. He not. He, you not. Good job. Good job, man. Thank you so much. Look away like that tomorrow, you might get knocked out. No. No. Oh, wait, no, what? What? Can you get across him? You're looking at him, you close your eyes. Then he's trying to hit him, you hoping to hit him. Okay, yeah. she wants to know your name. My name is Glenn Washington. Head Wrestling Coach at Silverback Academy. ok dañu dégg ne champion en lutte la ban genre lutte lay def. ok she said she heard that you are a champion of wrestling she wants to know what do you do. Uh, basically what I'm doing right now is I'm coaching. I done coached over 400 state champs, over 160 national champs. two world champs, and one Olympic. Uh, let's see, two NCAA champions and one Olympic alternate. So what we're looking for now is get uh, Olympic alternate and hook up. Ok, like, est-ce que they entraîne étrangers à part les Américains? Ok, she said, um, we have trainers, uh, like kids who or adults who come from America, you are willing to train them and teach them what you have? Yeah, I'm willing to train them all day, every day. Yeah. All day, every day. 24 hours a day, seven days a week. Yeah. And if, it, and if we can get an eighth or a ninth day in there, we do that too. Oh. Lako, oh, mom, lala ham Okay, she said, what do you know about Samu? Uh, Samu is Samu, great kickboxer, come over, great guy, great friend. Uh, uh, I'm glad he got back from Senegal. <laughs> Yeah. Oh. And so uh, just everything great about him. I don't have a bad thing to say about uh, Samu. Samu, the best. Lala koy conseil. What you are giving Samu as a um, like as a conseil? Not conseil. Like, how, what you are telling him to do? you know, as of all of this happening, when the people come we want, we and want, vice. We want SAMU to continue to train folks so that we can put together a top-notch MMA team over here. You know, we got Darnell doing the boxing, I'm doing the wrestling, another dude doing uh, judo, jiu-jitsu, Samu doing the kickboxing. What we're trying to do is put together a top-notch uh, MMA team, and we're trying to build it from the bottom up. We got some guys that's in the mix now, that's the older guys that probably be coming over from synagogues or other places. But we want to really build up from the bottom so that we know we got, we, we put them out there, we got solid people. lan lay conseiller mbëru sénégalais yi nga xamante ne dañuy bëgg a def lutte comme moom euh, ni nga xamante ne moom am na ci expérience léegi lan lay conseil ñi nga xamante ni dañuy ñëw fii di entraîner bëgg a dugg ci MMA bi africains yi comme les sénégalais. Okay, she said, well, you, what type of advice you giving to the trainers who's coming from Africa that wants to do only wrestling? Because there is ones that come only wrestling. What you the ones, ones that come only wrestling, bring a whole bunch of bananas because we gorillas over here. Yeah. That's why they call it the Silverback Academy. If you don't want to be a champion, this is not the place for We want champions. Those who stay will be champions. D'accord. la relation entre le Sénégal et l'Amérique, les États-Unis, parce que gis nañ fi drapeau Sénégal, gis nañ fi drapeau États-Unis. Ñu bëggoon xam relation bi nga xamante ne moom la ñuy partager. She said she wants to know the relationship you guys have with Senegal because she see the flag here and that really touched her heart when she got here and that would make her really think that this is the great place for the people who are coming. Everything that we know about Senegal and everything that we heard about Senegal that's not on TV we learn from Samu. And the relationship we got with Samu is the relationship that we have with the Senegalese people. So we got a good relationship and the relationship, everything that come through synagogue don't come through Samu, and it's white. And if, if, he bring, they bring somebody to me to train, uh, they good people. But I'm gonna work the hell out of them. Thanks, you. Maxi, my brother, Maxi. She said thank you. She appreciate no, it. Don't bring it back like this. Shoot it from right here. Okay, Donna. She wants to know your name and your history of what do you do in the school and your history of boxing. Okay. Uh, my name is Darnell Baldwin. Uh, I actually was born into a boxing family, so I had a uh, both grandfathers on both sides box. I had an uncle who was a pro. Uh, my father owned a martial arts school, so I grew up doing martial arts. Um, and I just transitioned to boxing like after football in college. And um, I came over to this House of Champions. I was at Crow Recreation Center for about 15 years. Then I got an opportunity to come over here and take this program over. So I did wax na lépp lu mu ci xamoon soo yow lan nga amal comme question ci wàllu liggéeyam ak Sémou. liggéey bi muy liggéey ak Sémou moom lan la ci gis ban avantage la am ci liggéey bi ba tax mu choisir ko comme partenaire. Okay, she said what type of relationship do you have with Sémou and what type of plans you guys have coming to this school so when the government sees this they know at least why you know Sémou have the people. like her come from Africa here to take this whole tour? Okay. Well, the, the plan is um, for us to touch all combat sports. Uh, wrestling, boxing, MMA, kickboxing. So Samu is, is, is, everybody got their specialty. You know, even though I'm familiar with kickboxing, I kickboxing a little bit, uh, and martial arts, but he the kickboxing specialist. So, and now we had a wrestling specialist over there. I'm the boxing specialist, and we also have a judo jiu-jitsu guy. So everybody's gonna play their part. Then the goal is to get everybody and cross-train everybody. Then see you know, what that individual can be more successful in. You know what I'm saying? Also, it, it, creates multiple streams of what a person can do. Just because you do one don't mean you can't do the other. So that's that was the goal to get everybody, the, all these trainers together that got they specialized of art and come under one roof so we can just navigate between each other. nekk comme mu ngi liggéeyee ak sénégalais est-ce que moom xalaat na benn jour dem Sénégal wala. okay. She said since you work with a Senegalese guy and you work with Senegalese people, she saw the flag. Are you are available to come to Senegal if you was invited for your art? Could you do? Of course, I'm all I'm I'm always willing to live, willing to learn um, about different cultures and everything. I'm open to all that. You know what I mean? I'm walking into that. You know, it, you know every every country got a kind of got a different flavor, and I never been over there. I love it. You know. dégg nga loolu ak ban question nga ma. bon. ndax pare recevoir ay nit ñu si fii waaw ndax fii dafay recevoir ay mbër yoo xamante ne dañoo juste ay américain. What time, what time know, are you ready to welcome some um, fighters from back home? Even you know they fighters is a little bit different. They don't know boxing so much. They don't mind so much. Just, you know, are you ready to welcome them to come to learn from you, to give from back home? Yes, we willing to welcome anybody and everybody. We've been waiting on this. You know what I'm saying? We see, we I seen the YouTube, the videos, so I feel that we got something to offer that I could offer something different to them. You know, so yes, we're ready. We're ready. Yeah, that didn't take too long. Ready. She said thank you so yeah. much for mm-hmm. that. oh, I want one more thing. Yeah. Long, as long as they ready to work hard, Oh yeah. If they ready to work hard, he's the man. We, we getting in. Oh, I'm yeah. a disciplinarian. Like, we gonna get it in. like yeah. Oh yeah. I know. So she's the reason why she's here is because Jen had that little bit long paper. Yeah. We put that in. You won't even know if I promise you that I put it in. They just decided to respond to the move, send her over. She from Senegal um, website will show you everything, what she's done all this, what she posted, what have you go in there. Now when they see this, then they will be able to send people that they see on. Appreciate it. All right, thank you. Thank you. Okay, she said that since you work with Samu, She wanted you to introduce yourself, your name, and what you know about Simone. Um, my name is Clinton Johnson. I've been here for about a year with Samu. He left and went back home for a minute to get fighters. He came back, but um, since I know him, he's been a good guy. He's a good coach. Um, cracked my back a couple times. My back was hurt one day. Um, he knows he knows his fight game really well. He's, he's, a good person. So. Yeah. I know, and I know one thing about him. I know one thing about him too. Like, if he's working with you and teaching you how to fight, he really like, he really like, he's really on your side. That type of guy to jump in there for you. She she wanted to know what do you do for living fire fighting, and what do you know about the school that you can give us? I um, well, I've been boxing since I was 12 years old. I've been boxing since I was 12 years old, and then I got with, my, I got with him later in my life. I was 40, Coach Darnell, and we moved, we moved. The pandemic shut us down over at the recreation center, so we moved here. And I uh, trained kids. I brought over like 30, 40 kids here since I've been here. And now that I'm doing like the underground boxing thing, I got a little underground boxing things like keep kids off the street and for people to have something to do in the city because there's not much to do in the city. Um, I've been throwing these fights and training fighters, bringing fighters to the fights and promoting fights and just have something to do, something good for the city to do. And I've been 40, I've been 46 this year. I've been doing this for, since I was 12, so I got a lot to give back. And I'm happy to be in these kids' life. I'm nothing without the kids. dama dégg muy wax sànq ay combat moom promoteur la wala. ok. said she heard you talking about fights. Are you a promoter? You promote fights? Yeah, I'm, I'm, i have my promotion license wow. in May. I'm going because I'm really like what we're doing is like underground. So, so I have no plans, but but I have a lot of fighters. I got like over 60, 70 people ready to fight right now. You know, so I, can, I can put a match here right now for y'all. So I'm, I'm happy that like I've been doing this so long and I'm getting love and respect back from my city for throwing these fights. So. I'm moom am na licence promoteur depuis mois de mais daaw soo moom léegi loolu lay def am na 67 ba 80 yoo xam ne ñoom lay jël ñu leen dajale am na 40 wala 80 personnes yu taxaw nii nii nii pour mu tëggal leen combat. thank you very much. It's a new dog bàyyi loolu la.